merci jërëjëf euh, ginnaaw bu ñu yàlla may ndam ñu sant ko ci bu baax a baax ndokkeel sama joueur yi kam fi nga xam ne joxe nañ tey lu ñu am lépp di ndokkeel tamit équipe adverse bu bilan bi mu mën a def mooy euh, objectif yi d' abord c'était de ñu mën a qualifier dem deuxième tour comme que nañ ci nañ ci sant yàlla certes ñu ngi deuxième deuxième bi duñ ci ci duñ duñ ci tuflit deuxième bu normal la je pense moom lañu mérité Mali moo ñu gagné Mali daf ñu dominer de bout maintenant léegi jàngat la woon daf ñu permettre ñu xam suñu suñu erreur yi mais suñu erreur mu ngi persiste ba léegi mooy suñu erreur mooy rebond ak perte balle ak yàkkamti donc si saa lañ ko ni di liggéey ak xale yi mais ñu ngi xam ne am nañ yaakaar que au fur et ñuy dem dañ gën a rectifier loolu la. par rapport ak euh, tirage bi. si si si je me trompe kii leen nar a dajal. Euh, Maroc leen nar a dajal Maroc. mais fii man dama ne fii erreur nit bu la gañee jàngat la da ci jàng yu bëri boo demaatee nga bañ a defaat même erreur pour gagner ko daal mais maa ngi ñuy concentré aussi suñu adversaire bi je pense que su ma juumalee Maroc lay doon équipe boo xam ne équipe bu mag la parce que équipe bu éliminé Tunisie Tunisie nga xam ne joué nañ ak ñoom tournoi Bamako équipe bu mag lañ gisoon yaakaaroon nañ fii Maroc éliminé leen donc équipe bu mag mag lañ war a doon te gis nañ leen joué équipe bu mën a basket donc il faut ñu mën a am immunité nawloo leen parce que bu ñu leen nawloo rek. du baax il faut ñu nawloo leen xam ne suñu adversaire que mën nañ ñu gañ que ñun mën leen gañee mais ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ñu xeex liggéey bu baax a baax a baax humble mën a am victoire daal. mentalement mentalement pare nañ xam nga beneen aspect bi mooy xam nga xale ku nekk lañ wax nit ñi duñ leen dimbali te dama ci profité parce que nit ñi duñ leen dimbali parce que ñun mënuñu tënee benn discours. ñeneen ñu leen woo di leen def toujours seen i yi seen i parents seen i agents seen entraîneur loolu yombal nañu liggéey bi ñun lu ñu gën a sonal ci loolu la parce que da ngay gis benn jour nga gis ko waxtaan ak moom wax ko ne ko lii laa bëgg ci yow lii laay joué projet bii laay joué ci yow defal li nga ñëw du taxaw sax mu def leneen mu def leneen na nga xam ne vraiment yow na nga mënuñu liggéey ci loolu pare ñu ñëw jour match jour bi def leneen donc cela veut dire que nañ ma baal peut-être mën naa juum mais ñu ñu waxal moo bari mental mental loolu la daal man dama ne du question mais dañ xaw a égoïste benn côté te nee naa leen joueur bu dee na ngeen bëgg nekk MVP. bëgg titre il faut que équipe bi gagne équipe bu gagnewul équipe bu dem lay final bu dem kii doon bokk si top 5 yi foog ngeen jiital équipe bi d' abord ci loolu lañ nekk di xeex ne nag équipe bi gis ngeen ñi mënuñu fekk ñu ñooy def erreur ñoo leen jox potaar ñoo leen jox opportunité paak bu ñuy rey surtout rebond yi ñëw am lancer franc du dugal lancer franc yi loolu daal tey ñu si sant sax am nañ tuuti amélioration au niveau des lancer franc ci tiir yi am nañ que du ñu taxaw tey ku nekk au moins naa ne ragal perte mu indi motivation ak constant parce que dama leen ne ah tey moom bu ñu perte dañuy ñibbi je pense bu ñu ñëwoon peut-être mënoon nañ ne match man kon important man kon kii mais match bi ci bu gën a important ce tournant la bokk daal. Euh, ñoom ay xale lañ. ñu ngi ciy sant yàlla nag ñu ngi sant vraiment état bi jàppale ñu. maa ngi ci profité ci remercier président fédération maire Babacar Ndiaye ak tamit président Mounas Mounas bu jàkkaarloo jàpp nañ ci man nee naa préparation depuis bi ma ñëwee daal préparation bi bi ñu am bi rek jours quinze jours nag donc conditions yi nag ñu ngi ci sant yàlla fédération bi ñu ngi remercier en ministère tamit. lan ngay am pour wax sa joueur yi. ñu xam ne lépp humilité la nawloon sa adversaire ñëw def li nga def joxe lépp comme tey lu ñu def nañ am même état d'esprit bi am état d'esprit collectif bi am na yenn erreur mënul ñàkk ay xale lañ tamit ñeneen dañ def erreur mais ñu xam ne ne loolu moo ci am solo mooy ñu humble mën a xeex mën a jëm kañe pour siggi suñu réew parce que